te yàlla seetaan Seexuna Tijaan yi moom la gën a tere ci tariqa diw dina xam ne duma moroom nee na ko wax loolu nee na woon aynul halal tabarakallahu eh, bi bi ñu demee Serigne Babacar nee na papam ne ko Babacar lii moom la yàlla santaane lii ma def lu tuuti la ci la sa maam daan seen xaaj maa ngi judd na Tiwaawan tabaski ngeen mën dem ca marché ba nit ku alaaji maa ngi jiitu tabaski amoo tabaski amoo tabaski xa xar rek nga am am ñu ci xaw am lu leen metti ci dëgg-dëgg nekkul ci sëkk bi ñu ne bëgg di mu woote leen ci jaboot bi ñëw mu ne leen ah, dama bëgg nag ngeen xam ne bésu doxandéem du ñàkk danañ doxandéem laa juddoo ma fi dëkku ma fi waaye bés nga ci ëllëg dinaa julli incha allahu taala bokk koog ñu bari noonu la ñuy liggéeyalee yàlla ci ay jàmm ñu ne nag dimension yooyu ci ngay xamee yàlla mooy à travers le saint Coran ndax dafa am relation bu yéeme bu nekk ci diggante alquran te moo di kaamil bi ngeen jël ubbi jël page di jàng mu di kalimat arabiya ak téere bi nga xam ne mooy créature yi da ngay jàng xool jàng bi da ngay teg bët foo toll yaa ngi gis yàlla yaa ngi tudd yàlla هذه الأبعاد لابد أن نقرأ القرآن لأن هناك صلة بين القرآن المنزل في شكل كتاب بكتب كلمات عربية والكتاب المخلوق في شكل كون مكتوب بالكلمات المخلوق في الكائنات كلها موتخ نيون يميتو يالا نونك يالا لنجيس نونك يميتو يالا لنجيس موتخ سنو جتاي اپنا خير اپنا خير اپنا خير اپنا خير اپنا خير اپنا خير اپنا خير suñu fay suñuy wañ suñuy wàññiku di dellu fa ñu bawoon lu doon taq-taq xëy na ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla ba ci man Maodo si nii daa ko fa sëppi yàlla sànni ko fu sori nga nga nga nga génne fa ay ay ay leer yàlla defalaatal choc yi ñu chargé la sa xol ba mu fees del muy teg muy muy muy muy muy yërmande di sutura di njëggal di mbaax incha allahu taala Russie loolu la yàlla di def yàlla nee na ku def lu baax ma fayal lu baax yàlla nee na fi ngeen ma séenu du nekkuma fa xoolal yàlla ni muy waxee rek ci alquran ah waaye waaye yéen ay jàmbaar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa gaa yi ñooy jàmbaar bokk na ci ñoom ñoo xam ne la ñu waxoon ak yow virgule delluwuñ ci ginnaaw dañu dañu dañu xas ci sama jëmm man yàlla yëguma fuñ ma ci waree wala ñu yëm na ci war am na ci nag ñoo xam ne ñu fi desandi waaye am na ñu jiitu ñu nga ci baqia al arqat denc nañ leen foofu ña ca dëggu daañu xam ne man rekk am dëgg te may dëgg man sama bopp te may yor teraanga ku ma mën a jëflante ka def ka dëggu ci la mu woote ci man te dëgg la ci li ma la yónni waaw may ki nga xam ne itam wa yu'addibu al munafiqin may ki nga xam ne tam itam kàccoor yi mécréants yi mën naa leen ak ñi nga xam ne dañuy wax kaw wax suuf mën naa leen a mën naa leen a mbugal su ma neexee wala sax ma bàyyi ba leen yàlla li yu'adhibu al-munaafiqiin in shaa aw aw mu jóg aw yatuuba alayhim damay wax toujours ne ñun duñu yàlla nañ bàyyee yàlla ak yërmandeem ak mbaaxam ak teraangam ak njëkkam muy jëflante jaam bi lu ko sob ndax moo di arrahman moo di arrahim su ne woon bismillahi aljabbaari almuntaqimi almutakabbiri mun mu metti waaye bismillahi rek ne arrahman wala baatu rahman sax ni mu neexe wax arrahim dogale ci loo xam ne dafay dogale ndax su ne na ma ñëpp bokk sant santin dana wuute ku nekk ak na nga koy yëge ku nekk ak na nga koy gisee waaye mu ne ah naa leen ko far jàngal nag nañ may sant ne alhamdulilahi rabbil alamin daal dellu si ne arrahmani rahim maa leen jox yi ngeen di ma ko sant ba pare itam maa leen xamal ne ngeen ma ne ngeen sàkku di ko bëgg ak teraanga sama loxo la nekk تم ضرباته الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يجيب تجيم خم يلا خم نو كوي وخلة خم نو كوي بوتو كم بدي فمدي خم نو يجيب فلنتي سأي ويجور خم نو يجيب فلنتي سين جبور خم نو يجيب فلنتي سين خالد خم نو يجيب فلنتي سين موك جلد طريقة سوبنيو سين عبد العزيز الأمين di suñu kilifa di suñu mag mooy wax ne tariqa bu nekk ku ko jël moo ko jëlal boppam kon boog bu ci kenn sikk kenn maam Sëriñ Tuubaa li mu wax radiyallahu anhu wa kullu wirdin yuridu l murida li xadratillahi walan yaxida سواء انتمى الى الجيلاني او انتمى لاحمد التجاني او لسباه محمد القاضي كل قطع على الصواب يعني إيه. بيرد وجل تدق بتدق تدق بتدق نان لاكو جوخي يما موتال شاتي غور غور لوجي دا نا لا يوب با تك لا سي لوخال جال تك كي لاكو جوخ جادول ولا مام سو جادي سو بوكو تي توك نخ نان موي سما سيرين كونتينيل يو إيه. خمغا سينيغال dañu bari teraanga ba mu ëpp léeg-léeg nga gis ku toog ci kanamu sëriñ ne ñun du wax ndax yaa ngi leen am laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi day eh, wax la rek yarfa sawtak ku ci adabi bi ku teg teraanga waxal sa xalaat mm-hmm. waaye li mu baree ci daayira yi wala mboole sëñ bi man kat wax

différence moom daal léeg-léeg bi wax jàng daal ñu bàyyi lépp sëriñ bi ndax wax yàlla nee na bu leen yëkkati seen kàddu ci kanam yonent ci yooyu yëpp ci ci ci ñu war di liggéeyante la léeg ñu waxtaan ci tuuti wax la nga war a wax sànq rek laa koy wax Pape sama rakk ju baax ji ndeysaan léegi sëriñ daf koy ma ne ma xaj maa ngi sopp Makhtar fu ma ko gis rek sama xel dem ci alxaaj mu ne ma Maxtaar nangam nangam nangam nangam nangam ci cër yu ko yàlla jox. Ajmalik. waaw. yàlla xam nga ne sama xol man itam. mu ngi doon wax affaire Maxtaar Kébé. léegi ci rajo bii mu la jàppal. ndax wallaahi si. nekk taabal bee ba ci man bu ne bëgg na la jàppal rajo. danu ko wàññi. te kenn du ko gis te sa xel nekk ci àll jàpp la si. kenn du ko gis sa xel nekk ci Cheikh Seydi El Hadji Malick lii lu mu ko wàññi bismillah jërëjëf Mbaye su ko defee nag yooyu dinoo di yoo xam ne daal di ko waxtaane baax na di ci bàyyi xel baax na bañ di gaaw a wet yi tam bañ gaaw a wet di baaxul gaaw a wet di baaxul Cheikh Ahmed Tidiane daf ci fii dafay tere taalibe mais bokk na kat ci sama charte tariqa ngeen fonk nitu yàlla yépp wormaal leen teral leen ndax ñëpp kat ay jullit la njëkk ngay nekk tijaan wala murit wala leneen jullit la ah tabaarakallaahu maam Serigne Touba ne nag ne dana la yóbbu ba ci yàlla su jàddul wala su jàddee yow taari boobu fetaral continuer Cheikh El Hadj Malick itam wax na ko charte tariqati li tariqati laa chartu tariqa bi tariqa bee ko moom du muqaddam bi la ko jox wala sëriñ chartu tariqati chartu tariqa bi li li tariqati tariqa bee ko daa law xatta yezura bi mawti fal taaqili wala laa taxfili ba su fi jógee rek ku nekk nga ne ko yeesal loolu yees na man de sëriñ bi woo ko mayam dama ñëw pour yeesu loo def ba yeesu wax ko wax tariqa bi du rab ci mbaaxu yàlla góorgóorlu ci rek moyal rek góorgóorlu rek dëgërlu rek pas-pas rek cofeel rek te cheikh nee na nag sooy sama taali bi waliyu yëpp na nga leen moo tax maam suñ Tuubaa sa waaw moo xam ka jël tariqa ba mu jël انتمى الى الجيلاني لقد اسكنوا في طريق الشيخ القادريه الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان الاولياء للبطوله او انتمى لاحمد التجاني ولا اسكنوا في طريق في طريق الشيخ او لسواهما من الاقطاب اذ كلهم خطا على الصواب ولكن keneen ku dul لكن يجب كي يون ñëpp يون كي la يالا yoon ci topp yàlla تنديك ñu يون يدوك باي خل te ndigal lañ ci am Sénégal yàlla moo leen teg benn nattu moo di séddale cër yu nekkul ci seeni loxo nee na itam kenn du ne sama sëriñ bu bon sama sëriñ bu baax rek nga li dégg ndax yaa tànn Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu fu ne mu dem ak ñoo laaj bis fan la boobu ñu dafa dem Kaolack bu mu fay seeti dafa seeti bàyyi ba bi mu fi jógee fu mu def Kaolack la mu fay seeti dafa seeti doomu ma nga Touba ma nga got boobu sëñ Saliou xaajuwul nekk xaalis ma nga got ma nga fu nekk ma nga ca Sidna Maam Raam Laay noppaluwul benn benn benn benn yoon ba na dafa doon jàngal dafa doon wax tabaarakallahu euh, mbaax mi nag dafa bari kenn mënul sax lépp nga wax ndax dafay amul mu néew waaye daal ñu ñu jubóog suñu bopp dañuy jubóog suñuy sëriñ waaye ñu jubóog suñu bopp sama papa daan na ma wax ne xaj maa yi ah na ngeen bàyyi seen xel seen bopp de na ngeen xam ne de ngeen jamonoonteel ak ñu ngeen di gis ci ëtt bi kër gi am nit ñu yàlla ñor de su ngeen defee lu dul noonu itam mën naa am ñu war maan leen ngir seen maam waaye nag yàlla ñor na leen mu ne nag alquran rapport bi nga xam ne moom am moom la univers bi am ak téere bi benn la boo ci xoolee man cee jële ay ak waar xoolal di ànd ak nit ngeen di tukkeendoo jël avion yéen a nga Europe yéen a nga Amérique fu nekk di jékki-jékki rek ñu mel ni jóge na surtout la ñuy wax ci baatu jóge na ko dañ cee toppal daañ ko delloo daañ ko jébbal boroomam gannaaw tàkkusaan jébbal boroomam wax la bu ñu tàmm rek waaye lu diis la mu wóor la ne yow itam kàddu gi daañ ko wax ëllëg wala gannaaw ëllëg ci yow diw nangam nangam nangam na daañ ko jébbal boroomam waxuñu ne sëriñam bi waxuñu ne parti poli parti politique am de waxuñu tariqam daañ ko jébbal boroomam ndax néew nag kenn xajoo ko ku dul yàlla ndax yàlla bu gën a sutura la yàlla wax ci alxuraan bi yuriyahu kayfa yuwaari saw'ata axiihi nee na Adama ak Hawa Xaabil ak Haabil ba problème amee seen diggante ba ba ñu rey kenn kenn ki rey moroom te ñoo bokk ndey ak baay ci la ci la jëkk a gis néew mu yanu ko xamul fu mu jëm jaaxle loolu fa ba'atha Allahu ghuraaban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwaari saw'ata axiihi nee na de ñu bàyyi la. ci mbedd mi suuf xaw yi nañ suuf si trop kon boog yàlla nee ci sama coobare dama yebal benn mbir te moo di baaxul muy muy gës ci suuf si di gës am am beneen picc xam mu am njëriñ sell yi fuuf ko daal di jaar ay tànk xale nag daal di xam ne ah kon foofu dama laa war a defanteel moom dama bëgg nag. bàyyi nit léegi rek ma bàyyi sëriñ Chérif mu am kàddu yu wax ak yéen mooy suñu sëriñ man mooy sama góor surtout Cheikh yëpp suñu sa yëpp sama sëriñ waaye man ngaan laa tabarakallahu moom laa seetoo sama sama xarit gannaaw bu mu nekkee sama sëriñ yëpp nag yëpp sama sëriñ hmm. amul kii ak kenn kenn kenn sa kenn Cheikh nee na da ngay jàpp ñu ko la nga bàyyi ñu ko waaye moom nag kami ekomi sojogi ak ba ci Abdoul Aziz Bay mëne xam nañu alxaaji Abdoul Aziz ñu ngi ci sëtu Cheikh waaye xam nañu ñu ngi ci Cheikh dafa bari kersa nag mas na ñëw si ci sama papa ne ma dama bëgg gis góor gi ci man la ñuy dal ma ne ko gis na ñu dem jëppal ku bëgg góor gi la ak yar dafa ñu tëgg rek mu ne mu ne dama bëggoon waxtaan yu tuuti sa papa ni ko may naa ko mu ne ko dama la dama la ñeewant la am rek lu may sàkku ci yow soo ma ko maye mu ne ko loo bëgg sëriñ maanaam mu ne ko li nga war a wax yëpp nit ñi ci fàttali leen ko muy yàlla wax ak yow di wax te ba nga leen ko waxee yàlla leen ci jiitu ci lu ñu war a def te yàlla bañ ñëpp ba tere ko wax nga ko waxaat ko bu kenn lu kenn xamul te ba nga leen ko teree fàttali ko fàttali leen ko